mustahilatun aji jomb la fi xaq yi ci xaq sunu borom ji taala moom yàlla mu di aji kaw ji de. nga lim la jàngaloon ne baatab rahmaan ñi ne dañ koo jëlee ci rahmati. te bu waa kon lim mën a tekki mooy riqatul qalbi mooy sew sew xol. ak xol boo xamee ne day lunku di sàkku gën ak rafetal. donta foofu la béy ko ci riqatul qalbi kenn du ko askane ci yàlla naan dafa am xol yàlla boo askane dafa am xol loolu jomb la ci yàlla ngay askane ne yàlla dafa am xol wala dafa am sew-sewu xol wala xol bi day sàkku dara loolu yëpp mustahil la kon njëlbeen gi dàqu na ci yàlla comme na ma la waxee woon ne mujj ga mën naa doon jaayis ni ki yàlla mooy xéw laa kon ñëpp cër na loolu ku ne xam na ko waaye yàlla dafa am xol kooku mustahil la max naa bi kon lu jomb ci suñu borom de kenn du ko askan loolu de caaqi suñu borom de fatu taburu des na xalam rek fi xaqi caaqi sun borom bi ixtibaari musabbibiha ci xalamu koo xamee ne aji sabab la mboolem lépp lu am de alqaribi tey aji jege wa huwa te koog iradatul muhsaani iradatul insaani mooy coowa rek ak rafetalam jëmee ci mboolem ay jàmm wal bañeedi tey aji sori jëde wa huwa te moom al insaanu mooy aji rafetal fa hiya melokaanu wëb di melokaanu wëb di rahmaan alal awli mooy li njëkk sifatu saatin ci melokaanu jëmmam ji moom suñu borom de kon loolu doonu loo xam ne lu ñuy xalaat la naan yàlla dafa am xol dafa am nangam kooku kenn du ko xalaat ci suñu borom de loolu dafa jomb ci yàlla kon li ñuy def mooy dañuy xalam ci àq yàlla ci sunu xel ak sunu xalaat ci sunu xol yëpp ne yàlla daal mooy ki amal lépp lépp ci moom la bay ko mooy ki jege ay soppeem mooy ki sëri ay noonam mooy ki nga ay noonam ña ko sëriñ ñëpp ay sopem ña ko jege ñëpp moo leen di bokk di xéwle di rafetal jëmee ci ñoom kooku kon mooy melokaan wi njëkk ci melokaanu jëmm ji de rahmaan moom ña ko sëreeg ña ko jege ci am ñëpp la koy bool di defal. mu ne waaye nag waa la saani melokaanu ñaareel bi sifatu fi'lin sifatu fi'lin la de tawa sifatul fi'li sifatul fi'li kon mooy haadisatun moom yàlla aji sosu bi max niñ koy firee daal annaha na ko moom yàlla mutajaddidatun mel ni nga naan aji yees la baax daa demin gannaaw ak ñàkk kon loolu ba tey dañ dafa dàqu ci yàlla de kon loolu kon fa takunu day nekk ba tey rek amran di mbir itibaariyan mu ñuy xalam de waaye wal mawla yàlla muy kilifa gi subhaanahu sërlal naa ko lépp lu yellut ci moom wa taala moom yàlla mi nga xam ne mooy aji kayo ji yettasifu dañuñu melal bi ca moom na mooy aji yërëm ku ko soob ci àlaxira waaye laa bi max naa nekkul loo xamee ne lu ñuy laal la ak max naa di ko ne annahu naka moom yàlla mawjudatun lu ñu aman la bax dax dimin gannaaw ak ñàkk listihaalati ngir jomb gi nga xam ne moom la jomb ittisaafil mawla di melal yàlla muy kilifa gi bii ca wax jooju de kon wax ju mat a bàyyi xel de kon waxoon na la ne rahman mooy melokaan wi njëkk mu wax melokaan ñaareel wi nag mooy sifatu fexle sifatul fexle yi ñi ko xamut mooy huwa lafsu yadulu ala xaalatin aw xaddasin yaxtarinu bis samaanin fil maadi awil hadiri awil mustaqbali mooy baat boo xamee ne day tegtalu aw melo wala muy tegtalu loo xamee ne dafa sosu maanaam boo ko waxee la muy tegtale mooy baat boobu dafa sosu taraxmaan maan fex lii la kon loolu dafa dàqu ci jëmmi suñu borom ji ndax yàlla sosuwut dégg nga moo fi mos di nekk te moo sàkk lépp mooy ki am ta amulu ko moo fi jiitu te tàmbaliwut fenn dégg nga kon loolu kenn du ko askanale ci jëm yàlla naan yàlla dafa sosu dem ba yàgg wala nga ne yàlla dafa ñàkkoon ñi amal ko loolu yëpp mustahil la ci yàlla su tur wi di rahmaan sifatu fi'li la kon njëlbeen gi dafa dàqu ni nga xamee ne mujj gi mën naa nekk jaayis de kon si sifatu fi'li mooy baat boo xam ne day tegtalu melokaan wala loo xamee ne dafa sosu loolu nag yaxtarinu bi samaanin sosu ga mën naa lënkuloog jamono fil maadi jamono ju passé awil hadir wala ju teew awil mustaqbali wala jamono jublu si mel ni ngeen xaraja waqafa naama wala ngeen ne yaxruju axruju nga xam ne lam yakun qawloo fi mustawa fi'li maanaam nga xam ne wax yooyu duñu yemoo ci jëfin fii mustawa amalihi duñu ye duñu yemoo ci fi'li duñu yemoo ci amali ci jëfin yooyu yëpp kon dafa dàqu ci jëmi suñu borom subhaanahu wa taala de kooku mooy sifatul fi'lin maanaam loo xam ne daal dafa sosu yàlla boo waxee ne sifatul fi'li la kon da nga wax ne daal yàlla dafa sosu dañ ko amal gannaaw ba nga xamee ne dafa ñàkkoon nekkul fi woon ñi amal ko kon loolu dafa jomb ñu koy melal ci suñu borom di wax wax jooju de yàlla ñu ci yàlla musal de kon njëlbeen gi li mu la bëgg a jàng rek njëlbeen gi kenn du ko askanale yàlla ndax boo ko askanale yàlla kon da ngaa bëgg wax ne dafa sosu am na jamono nekkut fi woon kon loolu nee na mbir la mu ñuy xalam rek na yàlla daal moom suñu borom subhaanahu wa taala dañ melal ne mooy rahim mooy yërëm ñëpp mooy yërëm ku ko soob ci àllaaxira waaye nag nekkul lu ñuy tudd de naan dafa sosoog dafa nangam ak wala nga am looy xalaat naan dañ koo amal ak yu mel noonu kon waxal la saani melokaani ñaareel bi sifatu fi'lin sifatu fi'li la de wa sifatul fi'li te sifatul fi'li mooy xaadisatun aji sosu la bi max naa li muy tekki mooy annaha naka moom mutajaddidatun aji yees la ba'da hadimi gannaaw ñàkk sifatul fi'li mooy loo xam ne dafa sosu lu mel ni mbindeef dafa ñàkkoon ñu sos ko kon boo ko askanalee ci yàlla dafa mel nag naan yàlla dafa sosu am na jamono dafa ñàkkoon kon bu dee ci yàlla nag moom fa tukunu day nekk rek am ran di mbir intibaaryan mu ñuy xalam de waaye doo wax ne yàlla dafa soxsi de mbir la mu ñe xalam rek wal mawla yàlla muy kilifa gi subhaanahu sëralal naa ko lépp lu yellu ci moom wa taala mu muy aji kawe ji yetta sifo dañuy melal bi ca moom de waaye laa bi max naa nekk loo xamee ne max naa la lu ñuy tudd la de kon danañu melal daan la mooy arahim waaye nekkul lu ñuy tudd de ci làmmiñ de nekkul loo xamee ne lu ñuy faram fànc la yu mel noonu naan ànd xoo na ko moom yàlla moo joodatun ku ñu amat la ba nga tax tamit gannaaw ak ñàkk listihaalati ngir jomb gi nga xam ne moom la jomb ittisaafil mawla ci melal yàlla muy kilifa gi bii ci wax ju ñaaw jooju kon yàlla kenn du melal ne dafa sosu am na jamono nekkul fi woon ba yàgg mu sosu wala dañ koo amal am na jamono nekkul woon loolu yëpp nga di ko askan yàlla dafa jomm ci yëmi suñu borom ji de wa kasaa naka noonu yuqaalu waxees na fii rahmaani ci baat bii di arrahmaani ak rahim fii xaq yi ci xaq yàlla li nga xam ne mooy lu dagan ca xaq yàlla ja ñi firee ko ko ñoom borom xam-xam ya dañuy wax ne bi maxnaal muhsini mooy maxna mooy aji rafetal ji aw muridil ihsaani wala mooy aji namm ag rafetal ji de ñi ne borom xam-xam yi liñ firee maxnaa rahmaani ak rahim ñi ne mooy koo xam ne mooy aji rafetal ji kooku moom rahmaan la mooy koo xam ne rafetal moom ñëpp ci la ko jëmee ña koy mooy ña ko weddeeg ña ko gëm ak ña ko gëmul ñëpp ñi ne rahim mooy koo xam ne ku ko neex rek rafetal jëmee ci moom ni ki yowmal xiyaam nga xam ne liñ koy firi mooy aji yërëm ku soob ca kon kooku buko ko ko neexee mu rafetal jëmee ci yow tàbbal la aljana laakin waaye li fi nekk al awlu bu njëkk bi ñi koy firé muxsin mooy aji rafetal ji te mooy rahman bi maxnaal muxsini bi jalaailin niami ay bi niamil jalilati kon laakin li fi nekk al awlu bu njëkk bi te mooy rahman li muy firi bi maxnaal muxsini mooy maxnaa aji rafetal ji bi jalaailin niami ci way dijji xéewal yi ay limi ci ndamu bi niami mooy xéewal yi aljalilati yada way magre mu ne rahmaan daal li muy firi moom mooy kuy xéewale xéewal yu digg yi wasaani ñaareel bi nag moom bi max naal muhsini mooy aji rafetal ji nga xam ne moom lay tekki bi daqaa'iq ni'ami mooy sew-sew xéewal yi de moom xéewal yi nga xam ne mooy xéewal yu saw yi yi nga xam ne moom la baaxoo di rafetal jëmee ci ay jaamam ñi ne ay mu ne ay limi ci namu bi ne ayu mooy xéewal yi addaqiqati yadi way sew de kon ñaar yëpp muhsin buy tekki muhsin ñi ne rahmaan muhsin lay tekki ñi ne rahim muhsin lay tekke waaye muhsin yi wutee nañ firee de bu dee rahman mooy borom xéewal yi nga xam ne mooy borom xéewal yi nga xam ne mooy xéewal yu dijji bu ñu yu dijji mooy xéewal yoo xam ne ñëpp ciy jot amul yéeféer bi amul bàyyi ma yi amul julit ñi amul ña koy mooy donte gëm nañ ko ñoom ñëpp ñoo ci jot bu ñu ne yu saw yi nag mooy xéewalu ëllëg yomal xiyaam yi kon ñaar yëpp muhsin lay tekki waaye nag seen max yi day dolleeku bu dee xéewalu ëllëg yamal xiyaam moo gën a yaatu xéewalu aduna de kon moo tax ma ne wasaani ñaareelu melu wi di rahim li muy tekk bi maxnal muxsini maanaam mooy aji rafetal ji mooy bi daqaa'iqi ni'ami li muy rafetal mooy sew sew xéewal yi de ay li ma ci namu bi ni'ami mooy xéewal yi a daqiqat yedi way sew de li anna siyaadatal mabna naka dooleeku jokkale googu taddulu day tegtal rek ala siyaadatil maxna ci dooleeku maxna de xaaliban ci lu ëpp de waaye wa innama jumexa dajalees na baynuma seen diggante ñoom ñaar ne isaaratun ak junj rek ne ak junj la rek ne ilaa annahu jëm na ci yàlla sun boroom ne yat baqi yan baqi dana yello an yut laba ñi sàkku minhu ca yàlla taala moom mi aji kawe an ñaamu xéewal alxaqiratu yéda way tuuti de yéda way xeebu de te mooy xéewalu aduna kama yan baqi comme num yelloo comme nim yelle an yut laba ñi sàkku minhu ci yàlla an ñaamu xéewal alasimatu yéda way màgg de ndax li anal kula nako képp ci ñoom ñaar di rahman ak min hu ña koy sàkkoo ci yàlla wax doo moom dong subhaanahu sërlo naa ko lépp lu ci moom wa taala moom yàlla mi nga xam ne moo di aji kawe ji ci wàllu naxwu buñ ñaa almabniyu fii naxwi huwa xilaaf xilaaful muxrabi mooy ay maa la tataqayiru xarakatu aqirihi maanaam mooy loo xam ne mujjanteelu baat ba du soppeeku mukk lu mel ni ngeen a raxmaani mantu soppeeku ngeen lu mel ni ngeen a rahiimi mantu soppeeku noonu rek la mën a mu ne dooleeku googu am ci nag day tegtale ne kon maanaam maxnaa yi noonu lañ mën a dooleekoo maanaam ñaar yëpp lu ñuy tekki muxsin muxsin du tee muxsin bokkuñ de muxsin bu njëkk bi di raxmaan mooy xéewale di ji mooy ki koy xéewale doomu aadama yëpp bu mujj bi di rahim di muxsin ba tey mooy xéewali sawi de kon gis nga seeni maxnaa nuñ dooleekoo de donte ñoom ñëpp muxsin la ñuy tekki mooy aji rafetal ji lañ koy firee mu ne ko kon dooleeku jokkale boobu am ci day tegtaleem ne mën naa dolleeku max naa ci lu waaye daal li ci mënta ko am yépp loolu ak junjul rek ne yàlla ci moom dong la ñuy sàkkoo xéewali aduna yi xéewali aduna yi boo ko bëggee ci yàlla rek nga koy sàkkoo comme ni nga xam ne noonu la yelloo ba tey ñi sàkku ci moom xéewal yu màgg te mooy xéewalu ëllëg yomal xiyam yi de waaye daal ñoom ñëpp ci yem daal ne ci yàlla rek lañ koy sàkkoo bu dee xéewalu aduna ak àllaaxira yépp ci yàlla lañ koy sàkkoo loolu kon tegtal la de waxiila waxees na ba tey inal ba naka ba goog ci bismillahi rahmaani rahim ñi ne lil musaaxabati le lu ñuy wax musaaxaba le musaaxaba mooy loo xam ne lu siin géeg miim géeg laahi gi di liggéey yépp moom lay liggéey maam dafay tuquk moom kooku la ñuy wax jëmbi musaaxaba bu buñ ne daamatil musaaxabatu mooy baynahuma samanan tawilan al mulaasamatu al muhaasaratu al murafaqatu mooy di ko ànd ñun ñaar ci jamono ju yàgg tëqoo nañ doon ay àndu ndoor buñ ne musaahibul lahu fi kulil awqaati yi muy muraafiqu mulaasimu loo koo xam ne dangaa taqoog moom ci bépp waxtu te doo tàggoog moom kon wax nañ ci baaxug bismillahi rahmaani ñi ne noonu la mel dafa doon musaahaba nga xam ne waxtu wu ne rek day ànd ak bismillahi rahmaani rahim ñi ne kon waqila waqis na ne inal ba naka baaxug bismillahi rahmaani rahim lil musaahaba la de musaahaba la dafa ànd ak rek turu yàlla wo nga xam ne mooy ismu jalal ak siin nga ak mimara gi waaye laalee listiaanati nekkut baaxug istiaana de ndax li li an na jaalaha na ko def ko moom baa góog boo ko defee lil istiaanati mu doon baawu istiaana fii nekk na ci kon ñi ne isaa atu adabin ñaawuk teggin de ñi ne kon baa gi nag musaahaba la dafa ànd ak bismillahi rahmaani rahim waaye ñi ne nekkul istiaana loo xamee ne baawu istiaana la de ndax boo ko defee istiaana kon day tegten loolu ak ñaawuk teggin la de istiaana ni ki nga wax bismi ta waxoo laahi bu dee baxa nag ñi ne kon dafa ànd ak moom rek dafa ànd ak moom tëqoog moom la siin gi da liggéey moom lay liggéey la miim gi da liggéey moom lay liggéey la lax yi da liggéey moom lay liggéey dafa ànd ak ñoom mantu tàggoog ñoom waaye ñu ne boo ko defee istiaana nga xam ne dañ ko fay def rek ngir dimbali ko ci yàlla ñi ne kon loolu kon ñaaw teggi nekk na ci de moo tax mu ne li anal ba al istiaanata naka baaw istiaana mooy boo ko defee istiaana li anal ba istiaanati naka baaw istiaana tadxulu dana tàbbi xalal alati ci jumtuwaay de fa yal sa mu ta muy tëquk xalaya ak moom de su ko defee jaalu ismullahi ñi def turu yàlla wi maxsuudan mu doon maxsuud de dégg nga de lu mel ni nga ne ahon su billahi kon jumtuwaay tàbbi na ko dégg nga de ne kon baagi kon li mën a nekk rek mooy musaahaba dafa ànd ak moom tëquk moom rek waaye nekkul istiaana ndax baaw istiaana fokk jumtuwaay da koy dugg di ànd ak moom su ko defee turu yàlla yi moom mooy doon maxsuud lu mel ni nga ne bismillahi ku ne xam ne ne bismi gi taxul laa jóg boo waxee bismi rek loolu ñàkkuk teggin la de ñaawuk teggin la de fokk nga ne bismillahi ndax bismi gi bismi dañ koy idaaf ca laahi gi de kon bismillahi rek nga mën a waaye mën a wax bismi rek de ñu ne loolu kon ñaawuk teggin la de ndax baawu istaana fokk jumtuwaay da koy tàbbi mu taxuk moom ànd ak moom su ko defee lañ namm rek mooy laahi ga waaye nammuñ dara ci bismi gi bismi gi moom barkeelu rek la tudd gi ngay tudd bismi gi rek laahi moo tax nga di ko tudd waaye doo tudd bismi kon li anal ba istianat naka baaw istiana tadxulu dana tabbi alal alati ci jumtuwaay de fa yal samu tamay taxuuk xale ak moom de baaw istiana day ànd ak jumtuwaay taxuuk moom su ko defee jaalu ismullahi ñi def turu yàlla maxsuudan mu doon lu ñu jublu de kon boo ne bismillah dégg nga de boo ne bismi jubluñ ne wax nga laahi boo ne bismillahi ci ngay dogo wax nag turu yàlla wi dëgg-dëgg de ndax turu yàlla mooy maxsuud bi de waaye laali saati nekkul jëmu ji de ila dem nañ ba wax ne ina man jaala ku ko def lil istihanati muy baawu istihana kon day mel ni nasara dafa xool ilaa jihati jëm ci wàllu uxra beneen de jëm ci beneen wàll de kon loolu mooy danga xool jëm ci beneen wàll boo ne bismi rek te indi wallahi loolu day mel ni danga xool jëm ci beneen wàll muy wàll goo xamee ne ñaawuk teggin la kon fokk nga ne bismillahi waaye bismi gi moom nekk turu yàlla wi turu yàlla wi dëgg dëgg dëgg mooy allahu kon fokk bismillahi rek nga mën a wax loolu mooy ismillahi maxsuudan li xayrin waaye laa li de ismi rek bismi rek nekk turu wa waaye turu yàlla wi dëgg dëgg mooy allahu de moo tax mu ne wax nañ ne képp koo xam ne def na ko baawu istixaana day mel ni kon day xool jëm beneen anam de te loolu mooy anam goo xamee ne ñaawu teggin lañ koy tuddee de kon bismillahi rek nga mën a wax de waaye mën a wax lurut bismillahi de ba tey mu waxaat moom sëñ mu dellu tegaat ci ne anal fixlal masruxa fihi laa yetimu alal wàccil akamali ilaa bi ismihi de taala mu ne anal fixla naka jëf al masruxa yi nga xam ne dañ leen yoonal fihi fihi ci moom nee na laa yetimu du mat mu wàcc ci anam ba al akamali ba gën a mat ilaa bi ismihi lu nga tudd ci turu yàlla taala mu mi aji kawe de waaye laakin li fi nekk xat yu na ne loolu moom masinatul isaati njortu lu ñaaw dong maasaalat mosul dañ mawjoodatan doon luñ fi fekk de mu ne jëf yi nga xam ne dañ leen yoonal yëpp lu mel ni jàng alquran wala lépp loo xam ne dañ cee yoonal tudd yàlla rek ñi ne fekk waxoo bismillahi du mat ca anam ba gën rafet waaye sëñ Tuubaa nee na loolu moom xëy na njortu lu ñaaw rek la waaye mosul dañ doon loo ne luñ fi fekk la de mosul dañ doon loo xam ne luñ fi fekk la bismillahi moom ca jamono yonent yàlla Adama ba no noo yëpp wàcc na. waaye am na ñoo xam ne daan nañ tàmbali dara mu mat te duñ ko tàmbalee bismillah ko loolu njot lu ñaaw lu mel ni lenn ci murid ñi lu ñuy def ne bismil xadimi wala ko ñu ne bismillah waaye ñu ne bismil xadimi am na ñoo xam ne bu ñuy lekk dañuy wax bismi xaalid ibnu walid wala bismillah barke xaalid ibnu walid yu mel noonu nga xam ne dañuy wax ne ku koy wax ku ne loo lekk suñu borom dana ko resal de mu ne loolu moom kon ñaaw njott rek la maanaam ne wax ji ñu wax ne jëf yu ñu yoonal yëpp su fekkee waxoo ci bismillah yi ca anam ba na mat na ko bëggee du ko matee ñi ne loolu moom kon ñaaw ci ñaaw njorto képp la de mosul dañ doon loo xam ne luñ fi fekk la de kon anal fi la naka jëf al masroxa yadi yoonal fii ci moom laa yettami du mat mukk alal wàcci lurul anam alakamali ba gën a mat ilaa bismi lirul ñu tudd ci borom bi taala moom muy aje koy de laakin waaye li fi nekk na xat yu xaala waxees na ne machinatul isaa ati rek la maanaam njort loo xam ne lu ñaaw rek la de maasaalat mosul dañ mawjudatan di luñ fi fekk de wa max naa ñi ne max naa baagoog ci bisimilah rahmaani rahim ñi ne al isaari yu ko jug rek la ñi ne day junj rek lu mel ni bii kaana maa kaana wa bii yakunu maa yakunu wa hiina isin yakunu ñi ne loolu lay tekk ñi ne lu mel ni xaarifiina billahi bu leen yàlla maye xéewal fëgg gi ñuy fëgg seen dën yi naan bii nekk na ci man nangam bii nekk na ci man nangam yi nga xam ne dafa dagan ci xàq yàlla lu may sun borom ne asmaan lu mel ni sunu borom ne asamaan ci man la tax tan suuf ci sama kattan yu mel noonu bii lay jëfandikoo dégg nga nga xam ne waxin woowu day mel ni ku koy wax day fëgg dënam ñu ne kon baagi loolu lay junji moo tax mu wax ne isaari yun la mooy kojug junj la lu mel ni nga ne bii nekk na ci man bii nekk na sama jëmm ji wala bii ci sama jëmm ji kaana ci la amee maakaana lépp lu am wa yë wa bii ci sama jëmm ji ba tey yëkkoonu ci lay nekkee maa yëkkoonu lépp loo xam ne dana nekk de waxiini isin ak ci jamono ba muy nekk ñi ne kon baagi loolu lay junji maanaam lépp lu am rek ci sama kattan la amee lépp lu fasoo am itam ci sama kattan lay amee lépp luy ay am itam ci jamono ja am ci sama kàttan lay amee ñi ne kon loolu lay junji di wane ne lépp tax lépp lu taxaw rek ci kàttanu borom ci la taxawee de yëkkoonu kon dana nekk fil baa i baagi di junji ila jamial xaqaidi jëm ci mboolem pas-pasi ne ne li anal muraada neka nammeelu bii baat ak bii wujjida mooy ki amal maa yu wujjida lépp loo xamee ne am na de wa bii ni ni ka nekk na ci man yoo judu ci lay ame maa yoo judu lépp lu am de wala kon du nekk ka nag noonu ci jamono ju muy am lurut man de dégg nga lurut nekk na ci man de ilaa mani itasafa lurul loo xamee ne melalees na ko bi sifaatil kamaali ci melokaana mat watana saa to ñu soril ko han sifati nuqusaani walis melokaana manki de ñi ne kon nammeelu baatab bii maanaam baatab baagi baagi nekk ci bismillahi rahmaani rahim ñi ne lu muy tekki kon mooy lépp lu am rek dafa taxaw ci kàttanu sunu borom gi loolu lay tekki wala lu mel ni lépp loo xam ne dana am rek ci kat ci kàttanu yàlla ci lay amee lépp loo xam ne jamono ji muy am itam ci kàttanu yàlla noonu lay amee ñu ne su fekkee dañ ko melalee ci melokaan woo xam ne wu mat la ba noppi nag lépp loo xam ne melokaane manqué la ñi sëril ko ko dàqal ko ko kooku day mel ni kon mooy lépp lu am rek ci kàttanu yàlla ci la amee lu mel ni xaarif yi ne billaahi ma la tuddoon léegi léeg sañ sëñ Tuubaa da ngay dégg mu ne wa bi yu baax yi fil jinaani umana maanaam ci sama jëmm ji lu mel ni saari bii yooyu ci sama jëmm ji ci lay puukare woo mboolem ñu baax ñi buñ duggee aljana xëyti bàkkun yooyu ñu ne baat ak baa baagi kon baagoog ci bisimilah maan loolu lay tekki dégg nga su fekkee kañ ko askanale dañ koo sëril ci mboolem melokaan yu manqué nit ki nga xamee ne suñu borom amul benn melokaan woo xamee ne dafa manqué melokaanam yëpp a mat kon baat ak bii ñu ne loolu lay jëriñ de moo tax ma ne ilaa ma ni itasawal lurul loo xamee ne melalees na ko bi sifaatil kamaali ci melokaana mat watana saata ñu sëril ko an sifaati nuqsaan walis melokaana manqué de lépp loo xam ne dañ koo askan wi na lii de melu yu mat la yore ñi soril ko lépp loo xam ne melu yu manqué la ñu ne kon baagi loolu lay junji dégg nga de waxaala wax nañ ñoom xaarifiina billaahi ñi ne laa maani hadiisuk tere minal istihaana ñiy def istihaana bismi ci turu sun borom taala moom muy aji kawe kama yustahaana comme ni ñuy dimbandikoo bi saati ci jëmmam ji de ñi ne xaarifiina billaahi am na ñu wax ne tere hu ñiy jëmbandikoo ñiy dimbandikoo ci turu yàlla comme ni ñuy dimbandikoo dimbandikoo ci jëm yàlla ji lu mel ni ngay ñaan dara ne yàlla maa ngi lay ñaan ci sa kàttanu jëmm ji loolu wolof miin na ko lool yàlla maa ngi lay ñaan ci sa ngir sa jëmm ji wala ngay ñaan nit dara na ko ngir jëm yàlla lu mel noonu kon loolu terewuñ ko de niki noonu itam nga doon ñaan maa ngi lay ñaan ngir jëmmi rahmaan wala maa ngi lay ñaan ngir jëmmi rahimi waaw ni ñuy dimbandikoo daal ci jëmmi yàlla aayuñ ñi koy jëm ñi koy dimbandikoo ci turu yàlla turu yàlla ak jëmm jëpp aayuñ borom xam-xam ñi di ci dimbandikoo de waaye wala awla la gën a yey daay jaal jaal jaxluha mooy ñu def ko lil musahabati mu doon musahaba mu ne li gën a yey daay moom baagoog ci bismillah rahmaani rahim mooy ñu def ko musahaba musahaba mooy loo xam ne day tuqoog moom du tàggoog moom buñ ne musa musahaba buñ ne daamatil musahabatu mooy baynahuma samanan tawilan al mulasamatu al muhasaratu al murafaqatu bu ne diw ànd nag moom mooy jamono ju yàgg mooy dama tuqoog moom doon àndu ndoram fu ñu jëm ñooy ànd buñ ne musaahibu lahu fi kulli awqaati mooy muraafiqun mulaasimu lahu koo xam ne dangaa ànd ak moom ci bépp waxtu rek waxtu ne yaa ngi ànd ak moom toqoog moom ñu ne kon baagi loolu lay jëriñ dafa toqoog siin gi ak miim gi ak laahi gi ak rahmaani ak rahim mantu tàggoog ñoom ñu ne kon def ko loolu moo gën ñu koy def baawu istixaana ndax istixaana boo ko defee baawu istixaana kon loolu ñaawee teggin la lu mel ni nga ne bismi ta waxoo laahi ñu ne loolu ñaawoo teggin la boo ko defee baawu musaaxaba nag nga xam ne kon dafa tëqoog moom du nekk baaw istiaana ñi ne kon loolu moo gën de moo tax mu ne wala awlaa la gën a yey nag jaaxluha mooy ñi def ko moom baagi lil musahabati mu doon musahaba mooy loo xam ne dafa tëqoog bismillahi rahmaani rahim te du tàggoog moom mukk ñi bañ koo def kon li nga xamee ne moo baaw istiaana ngir ñàkkuk teggin gu ci nekk de ngir ñaawuk teggin gu ci nekk de lima ngir la nga xamee ne fii jeexliha def ko lil istiaana mu doon baaw istiaana maa mooy loo xam ne fii nekk na ci issa isaatil adabi ci ñaaw teggin al maskurati gadaguñ tuddoon ani fan sànq de mu ne kon buñ ko defee baagu istaana léegi nag ñi naan bismi ñi naan bismi rek kon loolu ñaaw teggin la de waaye ñi def ko baaxug musahaba nga xam ne dafa toxoog moom te du tàggoog moom mukk waxtu ne day ànd ak moom ñi ne kon moo gën de boo ko defee istihaana rek mooy dangaa ñaawal teggin de comme niñ ko tuddee woon sànq de ci gannaaw leerle ko ko ko fil xadis yi nekk na ci xadis as sahihu muy sahihul buxaari ne anna rasulullahi na ko yonentub yàlla bi sala yàlla na julli alaahu yàlla alayhi ci kawam wa salama tamu dolli ko wóolu de xaala wax na isaa xaala saa boo xamee ne wax na almuallimu aji jàngale ji li sa bii ñeel xale bi nga xam ne mooy dal jàng saa boo xamee ne wax na ko ne ko xul waxal bismillahi baata bismillahi arrahmaani rahim ba dana bindal allahu yàlla taala yàlla muy aji kawe baraatan ak dëñ li sa bii ñeel xale boobu ñi wax waxal bismillahi rahmaani wa baraatan ak dëñ li ñeel ñaari way juróom moo xam wu góor wala jigéen de wala wu jigéen wi wa atan wala ak wa baraatan ak ak dëñ lil muallimi ñeel aji jàngaleem ji mina naari ca safara de mu ne jëlee nañ ci buxaari ak muslim yi nettali ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne saa boo xamee ne kiy jàngal xale bi ñaari way juróom yóbbu nañ ko ci daara ja moo xam ku góor la wala ku jigéen la ñu yóbbu xale ba ca daara ji jàngalekat bi na ko waxal bismillahi rahmaani rahim nee ne xale bi boo waxee bismillahi rahmaani rek xale boobu sunu borom dana ko dañal ci safara moog ñaari wéy juróom yi ki fi indi yëpp waaye ak sëriñ daara bi koy jàngal yëpp sunu borom dañ leen dañal ci safara de kon loolu nga ne lu ci nekk kenn xamu num tollu de jur doom rek yóbbu ko ca daara ja jàngalekat bi jàngal ko xoolal loolu rek moom mi ko jàngal ñi dañal ko ci safara ñaari wéy juróom yi ko jur yóbbu ko ca daara ñi dañal leen ci safara donte sax faatu nañ dugg ci seen biit bàmmeel ñi di leen bugal doom ji buy jàng dañ leen di dëngal ci safara kon loolu ngëneel yu ci nekk kenn xamul nu mu toll de moo tax mu ne baraatan li sabi wa baraatan li abawayhi wa baraatan li muallimi mina naari de wa ila sikri jëm nañ ci tudd fada iliha ay ngëneelam asaara loo xam ne junj na ko alqaa'ilu aji wax ji rahimahu yàlla na doole yërëm ko allahu yàlla taala yàlla mi aji ko bi xawli ci waxam ji mu wax minal kamaali mu bokk ci way mat ñi de te mooy wax ji mu wax mooy ismun isa qaraxal quluba tamayalat قربا وتمت بتقى أسرارها ويساحد الهادي بتيب حديثها تابت وفاحت بردا أسهارها ترتاه إن سكر اسمه ويحصها قربا إسا خفت به أو كارها وإسا ابتدت بشكره في حضرتي حضر السرور بها وتاب مسارها لي بن عارفين كبكتي عارفين موكو خنينا doon tagg bisimilahi rahmaani rahim di ci junj di ci junj lenn ci ay ngëneelam ci koo xam ne mu ngi mu ngi tàmbali mbir di ko tàmbale ci bisimilahi rahmaani rahim de kooku dafa waxoon ne ismun tur la woo xamee ne moom bismillahi xaraxan saa bu foggoo alxuluuba xol yi tamaayalat dana jaayu taraxan taraban mbir mu ñuy way bég muy sigréwu wata mat te mat asraaruha seeni mbóot bi tuqa ànd ko ragal yàlla de mu ne saa boo xamee ne xol yi dañoo fëggu maanaam boo tuddee bismillahi rahmaani rahim dañuy mel ni kuy jaayu kontaan bég lool su ko defee secret bismillahi rahmaani rahim daal di dugg ci seen biir xol ñaan ko ragal yàlla ndax bisimilah rahmaani rahiim waxoon naal ne secret yëpp ci lañ nekk secret yi nekk ci alxuraan yëpp mu ngi ci bisimilah moo tax mu ne saa boo xamee ne maanaam xol yi dañoo fëgg nga tudd bisimilahi rahmaani rahiim nee na xol yi dañuy dal di bég kontaan ci tudd gi nga ko tudd su ko defee nag mbóot yëpp dugg ci biir xol ba ànd ko ragal yàlla de mu ne wa isa xadaa ndem màng na alhaadi aji màng ji bi tiibi xadiis yi ci teey ak aji waxtaanalam taabat dana teey wafaaxat dal di bon bonni tasaaroo asxaaruha ay fulóoram biri daa ànd ko ngërëm de du ko misaal ne maanaam ñaari nit àndoon di waxtaan wala kenn koo xam ne dafa jiital gétte moo xam lu muy sàmmul ak lu mën a doon rek wala mu ànd ak ay nit di waxtaan ak ñoom nga tudd bismillahi rahmaani rahim day mel ni dafa am bonn muy gëtt misko goo xamee ne moo ci génnee daal di tasaaroo nga xam ne day rafet mel ni fulóor boo xam ne dafa fett dafa génn mel ni lu werta nee na loolu ba tey day tagg bisimilahi rahmaani rahim mu ne ndem màng na aji màng ji ci teeyug aji waxtaanam de mu tudd bisimilahi rahmaani rahim nee na ànd boobu ñi ànd di waxtaan day daal di teey ba mel ni dafa am gëttug miska gu bonn seen diggante mu ngi noonu de moo tax ma ne wa isa xadan ndem màng na alhaaji aji màng ji màng dañ ko doon wax mooy koo xam dafa jiital ay gëlëm di leen wëyal kon boo jiitalee gëlëm tudd bisimilahi rahmaani rahim seen biir noonu lay mel boo jiitalee ay nag noonu lay mel boo àndatee ay nit noonu lay mel moo tax nu wisa xadaa ne màng na alxaaji aji màng ji bi tiibi xadiis ci teeyuk aji waxtaanam taabat dana teey wafaat dal di bonni tasaaroo asxaar wa ay fulooram birida andu de tartaaxu dana jaayu in sukura ndem tudees na ismuhu turam wa yaxu soha ta muy gësamu de taraxan ngiruk ngiruk mooy kontaan sikrihu mooy kontaan gu ëpp isaa xufat ndem sonnees na biyu ci moom aw kaariha wala muy aji am naqar de mu ne tur la boo xamee ne saa boo ko tudde ci biir mbooloo nga ànd ak nit di ko wax wala nga jiital lum mën a doon rek di ko wax di ko wëyantoo nee na boo sonnoon sax wala nga am lu la naqari dootoo yëgati naqaroo dootoo yëgati mukk coono la ngir tur bu nga tudd da ngay mujj di gësamu di yëngatu di jaayu rek ngir tur bu nga tudd de wa isab tadat ndem tàmbalees na ko bi sikiri ci tudd aw turam fii xadaratin ci biir teewaay xadara dana teew suróoran ay mbégte bihaa ci teewaay boobu wa taabata dadan teey siyaaruha siyaare ba nga doon siyaare de mu ne lu mel ni nga dem ci bàmmeelu waliyu wala nga dem ci xafro yonent bi wala xafro gaa yi baax yi koo mën a dem wala nga seeti wëllu yàlla yi di leen siyaare dem tudd bisimilahi rahmaani rahim ci teewaay boobu nga xam ne moom nga dem tudd fa bisimilahi rahmaani rahim nee na mbégte mi day jolli su ko defee siyaare ba nga doon siyaare yëpp mujj tey de dem tudd nga ko ca teewaay bi rek nee na siyaare boobu day mujj tey ci yow de ci tudd gi nga tudd turu de moo tax man wi sab ta danta dem tàmbale tàmbale nga ko dem tàmbali nga bisikiri ci tudd ak turam fii hadratin ci ak teewaay